waaye kenn ku nekk xamal na way jur wii tey di suñu way jur alxaaji Amadou Gueye ak Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy moo nekkan buntum ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy di dox ñu di ko rafetal fa tabaarakallaahu ba bàyyi fi njaboot gi tey bés bii di bés bu ñu njaboot gi xam ni alxaaji Amadou Gaye la woon ak sëñ Mouhamadul Moustapha loolu ñépp xam na ko ñu àndan àndin bu rafet ba bés bii bu ñu nee tudde nañu ko ko ñépp xam ni du lu ñu for kon sëñ Mansour nuyu di nuyu mbooleem délégation bu mag bi nga àndal waaye sa bokk yu baax yi nga xam ni ñoom nga fi fekk ñu di ay rakk waaye di nuyu bokk yii ci kaw di Serigne Diop Serigne Diop nag Serigne bi ñu lay xamal ni moom njaboot la ci kër gi bu am taxawaay nag di taxaw surtout bés bii mu feggoo le ministre euh, sëñ Seydou Sy Sall moo toog ci wetam waaye am ñu la fi dawlu woon di njabootu sa maam maam Cheikh Al muy délégation bi nga xam ne moo jóge ca xalifa ba te jiite ko doomam sëñ Souhaïbou Mbacké di feggoo sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Xaadim Mbacke nga xam ni fa tabarakallah ba say doomu bàyyi lañu ñoom ñu ñëwal sàmp teew fi teewaay bu rafet sëriñ bi ñu ngi xamal ni njaboot gi ñi ngi bég te bi ñu amee bës bu toll nii am ku mag koo xam ni seen mbol ci diina ji di suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh El daan wax ni maa ci raxoon jamil ji ba jamil di fes lool tabarkal nuyu ziyaara sama jigéen ñi toog nuyu ziyaara ziyaara Cheikh Oumar Jamil Maam Ousmane Jamil ak Rachid Mansour Allah nuyu xalifa bi sunu waajur Cheikh Gueye nuyu sëñ Mouhamad Gueye nuyu coordinateur bi nga xam ni di yëpp moom la di nuyu monsieur le Seydou Sissane di sama collègue di ma xarit sama nous avons fait les années de braise ensemble dans la gauche sénégalaise di nuyu Serigne Diop bi nga xam ni damay daje moom dans les conférences internationales bi ñu njëkk daje c'était au Bénin yaa ngi koy fàttaliku sur l'islam la paix et l'éducation di nuyu Cheikh Tidiane Dieng bu sëñ Mansour borom daara ji mbokk ñi nga xam ni ñoom la fekk fii may wax ni fii dama fi indi sama bopp fekk fi sama bopp ndax kolere góor gi Amadou Gueye ak Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha mu am lu bare lu nga xam ni dana ko bokk ñoom ñaar ci seen vision bi ñu xam waaye ru'yatuhum fil hayaat ñoo ko bokk fexe ba jëmbët ci xolu doom yi seen ndoney maam jubbu bi leen fal te mooy alxuraan ba nag ubbi leen ubbeeku bu nga xam ne bii lépp lu nga xam ni dafa dëppook seen jamono fexe leen ba jàngi jur ay doom yi moo xam ne ñëpp entrepreneur la ñëpp homme d'affaires la te teewul li ñu doon ci seen maam ak seen bàyyi ñu ngi ko téye damay faral di dem dans de réunions internationales am na bu nga xam ni bërki dem laa ko jógee Liverpool si benn organisation bu ma bokk bu tudd business and religion les affaires et la religion ba mu fa mujjee dem dama fekke benn séminaire mustaqbalu tarbiya l'avenir de l'éducation ñu wax ni mustaqbalu tarbiya ñett la waaye bi si jiitu mooy iman te ña fa daje man rek ma doon julli ay chinois laa fa fekk ay coréen ay anglais ay américain ay français ay italien ay espagnol ay japonais waaye ñu ni mustaqbalu tarbiya jàngale ëllëg bi si jiitu mooy imaan bi nga fexe ba saxal ko si xolu xale yi beneen bi mooy lan mooy informatique beneen bi mooy lan mooy mathématique ñetti yooyu ñooy mustaqbalu tarbiya moo tax bi ma dellu see si kër gi damay dama sama xol dafa feex parce que loolu su fekkee ni iman rek la jiitu na nees ndax Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha bi ñu génn àdduna ñaari xale ñoo nekkoon ñaar fukki xale ñoo nekkoon si léegi sept cent cinquante et am na trois cent cinquante qui sont sur la liste d'attente damay faral comme dama nekk si politique bi damay attaqué naa ma cim nga doon daal di def politique man leen je n'ai jamais ah, des man tuutu bi muy soutenir ñoom ne seen mandat dañ ko doon wax si sa paroisse mu leen je n'ai jamais man tam daara ji ku ñëw Fass xam ni je l'ai jamais quitté indi foon nag sample boobu jógee ci daara sëñ Moustapha ñëw ci daara góor gi Amadou Gueye wane ni ñoo bokk mission mag ñi de dem nañu waaye doomu mag ñee fi des mag ñi nag yàlla moo leen tagg si alxuraan lawlaa kaana min alquruuni min qablikum ulul baqiya yanhawna an ilfasadi fi l ardi illa qalilan min man anjayna minhu wattabaa alladina zalamu maa utrifu fihi wa kaanu mujrimina yàlla nee na doomu mag ñi ñoo fi des waaye bu leen door seen dënnu du yéen mag ñi la ulul baqiya yanhawna an ilfasadi fi l ardi ulul baqiya mooy ñu nga xam ni fu safaan bëgg taxaw ñu duma ko ba mu daw ñooñu ñoo liggéey liggéey bi ulul baqiya ulul xikma ulul aql ulul ilm ulul tamyiz fa jaalnaahu samian basira naa hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura mag ñooñu nag seen liggéey moo barkeel yàlla nee na su ma demee ba leen di bëgg duma xalaat mag ñi damay dellu gannaaw parce que xam naa ni mag ñi liggéey lañu liggéey moo xam bi seen ay jeexital su ma dalee seen kaw rek man yàlla juum wa maa kaana rabbuka li yuhlika al-quraa bi zulmin wa ahluha muslihun waxul muxlisun de dafa na su ma demee bay bëgg duma xalaat mag ñi liggéey bi ñu liggéey rek damay dellu gannaaw ñooñu nag laa fekk fi tey kontaan lool ndax daf dañu bokk ñoom ñaar manhaj dañu bokk ñoom ñaar eh, ruyatu fi xayaat ba pare am leadership bi ba pare nag xam ni mënuñu soppi lépp si benn bés il faut la durée ñu jëmbat loolu bàyyi fi dem seen yoon ñu waroon xamante bu yàgg fii waroon naa fi ñëw bu yàgg xale yi waroon naa leen xam bu yàggee ndax ñoo bokk mission ñoo bokk jamono kon xamante weccante xalaat dégg ngeen xale yi ñu jàng si daara sëñ Moussa su ngeen ñëwee fee itam daan leen déglu ngeen jàng waaw ku nekk nag seet li nga xalaat su fekkee ni dëng na nu nga jubbanti loolu rek moo tax ma indi xale yi xam naa ni am ngeen ay xale ñu fi jàng yu dàq jàng xale yi mais dama leen indi rek pour que su fekkee ni am na lu jubul si li ñuy def ñu jubbanti leen sama waajur bi toog sama wet dafa ni ma xale yi ñoo waroon dëkk jàng jàng alxuraan mooy doolaa jàng burdu ma ni ko déedéet burdu bi sa ñaanu maam la sa ñaanu baay la Seydi Abubakar ndax moom nee day wutu ko teg ci loxo yonent bi jultul mawaamiya wa juttul maala fi talabi cheikhin yurini simaral wasli للماحي جلت المواني حط المال في طلب شيخا يريني ثمار وصل الماحي جلت المواني جلت المال في طلب أو حط المال في طلب شيخا يريني ثمار الوصل للماحي السيد بابك أنا لما كان يراو ne xotti naa mandingi ba xottul maala wala juttul maala soo ne xottul maala alal bu tasaaroo la nga dajale juttul maala alal boo téye sa loxo nga dépensé fi talabi cheikhan di wut sëriñ bu nga xam ne bii yuyu ñi daf may woon simaral wasli meññeentu jokk lil maax yi si yonent bi saw nee na ma génne taksi si xaaj mu bind xilaasu zahar di jur di fanweeri bunt mu noonu ko gàmmoo waaye mu am mandute bu toll na mbaax bu guddal na dem jëli Mouhamad bu sëy fukki bunt la am waaye comme moo ko jiitu si géew bi mu jox la ni jàngal fukki fan ñu lay jàngal te mënoon nañ indi xilaasu zahar ñu burde ko waaye kii lay ka jiitu mu ni nan jàng fukki fan bésu noppalu bi fukki fan yoo xam ne werante nañu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ñu noppalu fukki fan ñaareel mu ni nañu gàmmu gàmmu ba nga xam ne bés boobu bés la ba xam ne kenn werante wu waaw kon nag ni nga ubbee noonu la sa ñaanu bàyyi la si Seydi Hadji Malick yàlla nangu ko man dama si kontaan ni sama maam